Heavy Mess.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 ba gis ko sàkk ci safara mala yi tamit naka noonu danañu feebar ñu seeti vétérinaire saytu seen jàngoro ba gis ko sàkk ci safara waaye nag réew mi moom kenn saytu ko ba ci sàkk safara moo tax ma ne jàngoro ji dal mi moo gën a graaw korona laa wax la xew ca bu wokkaam romb na doy waar ñaari waxambaane yu góor lañ fa fekk bëccëgu ndara kam ñuy sëy subhanallah kenn ki ab élève la des di ab étudiant kenn ki am ñaar fukki fukki at ka ca des am ñaar fukki at ak ñaar xoolal ma ndaw lañ de ki di wuyoo bee njaay ka des di wuyoo SF Camara am ay tur yu yoo xam ni maara de taali laa wax mbir mu ñaaw moomu nag nee ñu mu ngi xew le 16 mai bi weesu boori 18 heures li feeñal nag mooy benn waay bu yoo ci turu F Mbaye moo doon doxantu ak xajam ci place bu Ouakam naka noonu nag ki la séenee bi ak étudiant quotidien bi di raayante ak fóonante si noonu F Mbaye dal di yolleeku nank dem informer agent yi nekkoon ci rond-point boobu ci saa si le dem ci lieu bi dal di bett bee Njaay ak SF Camara ne dung ñoom ñaar di sëy <laughs> waaye man ne dëgg-dëgg lieu um réew mi ñu leen jàppee ñoom ñaar yóbbu leen nag bi ñu leen del enquête ñoom ci seen bopp avoué nañ ne dañ doon sëy piri bi ma nga nekk ca lycée Maurice Delafosse di wuyoo ci turu Bee Njaay déggay mi nag li mu def ëpp na ndax déggay da doon mbubboone ab colonel la ci la doon bëgg a arnaquer benn femme fam boobu nag doomam dañ ko tëj ci kaso rëbës nan deetewaay déegay faux colonel di aborder fam bi bëgg koo doxaan di ko envoyé ay audio ak ay image yoo xam ne waaye maara dee taali wax ci saay saay de te li ci gën a doy waar mooy fam bi mu bëggoon arnaqué doon koo aborder dafa am jëkkër li tax nag ba xelu ndaw si tey mu yóbbu ko ci yoon mooy déegay dafa njëkk a présenté wu ci moom ne ko section de recherche la nekk bëgg mu laaj ko cent mille francs ngir utal ko avocat li ci gën a doy waar nag ba ñu demee ci kanamu yoon téegay foo colonel daf ne da doon foo rek moom daal da doon foo rek ma ne ko sa foo mi nag ëpp na de mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje di ci yeneen xibaaru buzz